non jàmm rek euh, ngeen jox ñu ñu jëkk gërëm suñu borom bi mu ñu mayee bés bi tey ñu mën ko def ci jàmm yaakaar naa loolu am na solo te képp ku fanaanoo Sénégal tey yeewu yaakaar da ngay ñaan jàmm am fi yaakaar naa bitim réew gis ngeen la fa nekk président de la république nag li mu ñu sant mooy fexe ba jàmm am fépp ci biir Sénégal moo tax en envoyé nañu donc kaaraange ci ci dëkk yëpp ci donc ci ci bureau de vote yi te am nañu yaakaar ni sénégalais yi am nañu mat am nañu matu bu day ni lu lu mel nii président def proposition nee naa def nañu ko 1963 def nañu ko 1970 ñu def ko 2001 ñu def ko ci jàmm ak tey am na yaakaar ni tey dinañ ko def ci jàmm ak tey en tout cas li ñu def mooy wër département bi wër suñu commune bi waxtaan ak njaboot gi wax leen lan moo tënku foofu. ci biir euh, donc quinze points référendum waxtaane nañu ko te xam naa ni njaboot gi dégg nañu lu ñu wax du amul waxi nefe na fekk amul waxi tàppale li ci nekk lañu wax léegi nag ku ci nekk na taxaw ànd ak sagom ñëw wote ndax jàmm sax Sénégal ba faw yaakaar naa loolu moom ñun ñëpp ñoo ko bëgg loolu laa ci bëggoon wax. monsieur ñu ngi fii Fandène dañu gis euh, suñu mbokk yi ñu ngi voté mais daa am ñu yor seen loxo loolu si wàllu taarix fii ak dëkk bi lan lay tekki. waaw euh, am euh, kii feetu rameau la ci ñun euh, loolu c'est fête ancienne la te ñi xamul église sax dañoo yaakaar ni du doon feet boo xam ni war nañu ko màggal mais fête bu ñu màggal la mais fête boobu jotewul dara ak ñëw woote yaakaar waxtaan njaboot gi monseigneur yi wax nañu ci xam nañu ni xale yi xam nañu ni bés bi mën nañu ci woote mën nañu dem église ñaan suñu borom may ñu jàmm ci Sénégal parce que moom rek lañ bëgg donc tey léegi euh, li ma bëgg mooy ñëpp xam ni tey bésu sor-sor la pour ñi sama mbokk catholique yi bésu sor-sor yaakaar naa dem ngeen mees ba ñëw ngeen voté ku ci nekk day voté ci xalaatam waxuñu kel voté lii wala li ñu waroon wax wax nañu ko tey moom ku ci nekk day ànd ak xalaatam ànd ak sagoom dem voté li nga xam ni dafa yaakaar ni moo gën ci Sénégal loolu lañu ñu jaale suñu mbokk militaire bi nga xam ni dafa def accident ci Kaffrine euh, boobu dañ demoon ci pour euh, donc euh, aar bureau de vote yi donc ñu ngi koy jaale mbokkam yi ñu ngi koy jaale xaritam yi ñu ngi koy jaale armée bi yëpp ñu ngi koy jaale aussi Sénégal wax ni metti na ñaan suñu borom may ko àjjana ki dem fexe ba aussi suñu borom may kattan ay mbokkam yi ñu mën a muuñ li nga xam ni dal na leen lu metti maa ngi leen di gërëm di leen sant.